jërëjëf mbokk yi internet ci ñuy bàyyi xel partout ci monde mi mbokk yi amati nañ mbégte bu baax ak contentement bu rëy comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy sam seet le grand champion muy meng Mboro ñëw nag defal ko entretien waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom tamit ci carrière am ak ci combat yi nga xamni joge nako té ko te ñu fekk ko ci koñam wax dëgg yàlla dana waxtaan ak moom ci lu bare bare ci lo xamni tay lal na lamb mom nak mi ngi muju arena nationale suma juumul ci digganteem ak Albarka kayré coole nag bëri na ndax fi mu ne toogaay bi yag na tok euh, toog bim euh, mu don donte que ci ay defet la tok suma juumul ndax mbay Diop Safara mo fi daan ak Albarka kayr ak ñeneen suma juumul daan nañ ko fi mu nekk si ay jafa jafe te mbeur mu mag la mbeur mo xamni bu joge rek jàmm ga ndoxoy muy sikam euh, sam-sam caaroy nyop dañ koy top te loolu baaxul ci mbër moo xam ni mbër mu ñëpp yaakaar la kon dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi waxtaane làmb mbër bëgg naa la. waaw Mouhamed julli si yéen bi sant samay ñaari di gërëm sam papa sama yaay di nuyu mondo entier di nuyu Sénégal ñëpp waaw di nuyu suñu gàmmu gu ñu waaw di bëggee nyop di sant nyop waaw di la muhammad di nuyu sam papa sama yaay. di nuyu sama wasi la sëriñ Siidi alxuraan waaw di nuyu fii ngeen ma fekk sama koñ sama dëkkuwaay fi ma bëgg mooy Randam waaw di leen bëggee bu baax a baax di leen kontaante yéen tamit waaw. woo naa la nga ne moom fii la ñuy defee émission bi mel ni kon am na lu ko sabab lan moo tax nga indi ñu fii. waaw soo gisee ma andi leen fii booy su ma amee làmb ñoom dañuy sonn ma gis taxawaay buñ ma lebal te ñoom liñ séntu woon mooy ndam far ñu dem yàlla. jox ñu liñu lo xamne tay ne ñun su doon dañuy sedd suñu bop sax duñ ko jox suñu bop ndax gis nañ tay doomu adama yi ñu top yépp té ñu gis tamit ñom ñu amon ci taxaway bu am solo te booba tey ñoom bàyyiwuñu yaa ngi dégg tay ñom bayyi wuñu légui ñun tamit ñu sabablu si tamit ñu am émission andil leen ko waaw. am na solo li ñew nak ci carrière bi bi nga dóoree ci lamb yagna man suma jëwul sa premier combat bi ma ñëk a sax sa ci ar daw dafa la won Iba Mal Diop carrière bi ñaata combat nga def ñaata victoire ñaata défaite man bama ma dooree si làmb yaagul de combat fëgg la jokkeel laa bëre premier combat aren. dëgg la yàlla moo ñu teel a génn si làmb rek waaye bañ duggee si làmb yaagul. ay 2016 jàpp 2017. waaw itu 2018. ndax le 11 mai. waaw waaw 2018 lah njëkk a bëre arène. waaw du ma ko mës a fàtte. waaw maa bëre 8 waaw 5 victoires 3 défaites. waaw. trois défaites yi. trois défaites yi Thiat Daouda la Mbaye Diop Safara Albarka Kairé victoire yi ñan la. victoire yi. kii si la bokk Dame Junior. at jànqalaar. waaw at Boy Pula bu yëmbal. waaw at kii na la tudd Ahmed Lagrose. waaw. nga daan ay champion ñoo xam ne ay espoir lañ ay Dame Junior ay Ahmed Lagrose. sa carrière loo ci jàngee su may ñëwee ci victoire balaa ma ñëw ci défaite yi. Ameth ah, jàngee naa si lu bëri ndax tey soo doonee ndaw suñ boroom jël la nga doon jaamu yàlla boo xam ne tey amaana yow nit nga am na xat-xat yi la suñu boroom di teg yow dalay wan si biir xat-xat yooyu noonu si ngay jàngee natt sa bopp xam ki nga doon tey yàlla lii mu ñu teg dañ koy santeewaat yàlla bu baax a baax ndax lu gën si ñun la ndax dama naa man saa yu ma bëree daanu si laay gën a am avancement ma bëre arrière. ndax saay mu beure daanu ci lama nit ñi di gëna a ndax duma wone yaafus man duma goor goor bu ñaako jom wala dara man suma démé ci xaré damay démé joxé lepp ba ma ba lima ma jox ma jël ko man non la mel waaw. léegi lu waral daanu yi parce que meng Mboro bu ñëwé ci bu ñëwé bu sumé ko kenn du ni cim doole ji day bari machallah ba ci beure bi tamit mu ngi fi lan mo lan mo lan mo indi daanu yi ndax lo gis nak amna na sabab daanu yi du ci ñun. ndax tey amaana yow nga jàpp mbër dóor ko ba mu tëdd nga jàpp war a daan daanoo du si ñun suñu borom la yàlla moo ñu daan may yàlla ñuy xañ. amee yàlla yàlla bay sa tool. waaw ñoo ngi bay suñ tool li si war yëpp def nañ ko lépp luy làmb dañ ko koy jox ñun làmb rek la topp ñun topp leneen lu dul làmb kon moo tax ñun saa ñu duggee si làmb lépp lu làmb laaj dañ ko koy jox ba mët sëkk kon yàlla moo si des ñoo koy tàllal suñu loxo suñu retour bii di ñëwaat mu ànd ñun. Anu na ñu jàpp ne xelu mbëre mi des na. xelu beure man meum bor ku ko seetaan sax man limam ma beure gumako boy beuri fi fii ba may mbapat dañoo laqatu seen ginnaaw yaay. barki sayidina muhammad ba may mbapat ñu beuri dañoo nekkon seen ginnaw yaay. man li ma fi fii tund ko nii koo tàllaloon micro danaa la boy bi lu mu beure guko ko. waaw. du kaduru ñak man beure wala dara dedet dama beure dama ramper ñiñ naan ay mbeur sax daaxuñu ma bëré si kanam nak ngeen koy xam wa defet nak day sul lu bëri ñun ay doomu arama lañ te ay jaamu yalla lañ muñ kat ñun muñ lañ ñu jëkë a suñu aduna dañoo mëna muñ lima dal kumud dalon baye nga xama fa la dëkk ala ci amul baye duma mësa baye a damay dem ba mu sës suñu yaakaaree damay xadi duma xadi xaadi ala ci amul baye duma baye te ma ngi ñëwaat. gonay neen retour Mbengue mbor misil la bu saf-saf. lo si jàngee defete lo ci jàngee. jàng tonga ba jàngat ci xamné xamné xamné xeyna amna amna mbolo bu la yaakaar ta aman nga tamit aman nga dara ci lamb ndax mbolo bi bari na mbolo bi lay top xeyna na sax am na ñoo ñi nga may victoire top leen. barki sayyidina Mohamed limay top man mi man mi tok dama yem waye lepp sama yar la ak cër bi may joxe ci doomu adamay tay boy ndaw yi ni taxaw ni amna lo loo suma ko wonon duñ ma ñaata doomu adama fi ne dañuy togg seen añ sax kenn du ko añ kon tay sumay may génn doomu adama man musuñu ma may auto boy dañuy daw fii ba esat jàngat naa si lu bëri sama defet xam naa ki ma doon. billahi wallahi suma dugg si waatee arène national dinañu xam ne kii du meeng mboora bu doon ñëw meeng góor bu dëgër bi ñëw. billahi. mais mais mais mais góor bu dëgër bi gën naa ñëw ah. gëj naa ñëw wala mi ngi ñëw ba léegi góor bu dëgër bee ñëw nii retour bi laa la wax góor bu dëgër bee ñëw góor bu dëgër këj barki Serigne Bamba billaahi sa combat ak albarka moom mm, ñu bëri yaakaaroon jàppoon nañu sax yaay combat boobu moom yaay nekkoon favori te ñu bari tam yaa jàppoon nañ parce que dem nga ba dem nga ba jël yoonu ndam mm, mais xaw ma lu la xaw ma xaw ma xaw ma loo def foofu ba albarka mujjee laa daal. albarka maa ko mën aller retour man ñi ma daan ñëpp ku ma da su ma bëree laa daanu rek da nga naan alhamdulilahi rabil alamin man ñi ma daan ñëpp albarka maa ko mën aller retour waaye suñ dama ne la suñ borom moo ne bis bii du sa bis loolu lu ma si man damay xeexal suñ borom mi ma fi wàcc te mu jox ñu bakkan ñuy nooy hmm. munu ma koo ma xeexal moom munul ne si àdduna tey doomu aadama yow nit kese nga yaa ngi xëy di sant yàlla jox la bakkan ngay nooy am na ñoo xam ne tey ñoo ngi bëgg a dox munuñu dox am na ñoo xam ne ñooy si hôpital yi am na ñoo xam ne ñooy si kaso yi bëgg am seen bànneexu bopp mënuñu ko am ñu xañ leen ko kon suñu borom tey si nattu boobu mu ma teg du ma ko sande ma bëre daanu man ma bëre daanu samay nit am jàmm moo ma gën a may daan waaw kon yàlla moo ma daan may moo ma dama ko koy sante lambat albarka man su doon man la dal loolu duma ma zumbule bay ànd samay mbokk di ko feete ndax li fa am yëpp maa ko def maa duy stade bi maa ko jàpp maa dóor ba mu tëdd kon dem bay daan daanu moom gaan nañ waxante dëgg. ay bi nga fa jógee ba léegi nag promoteur yi saa yi ma yeewoo ma maa jëli élan nañ ma xaar waaw. mais dégg naa yaay daw de. man du ma daw promoteur yi ma woo naan ma meng moroom mooy laaj lu bari bëgg a daw. <laughs> du ma daw barke Seydina Mohamed man amul nit ku yàlla xaatim nga ne si làmb ma lay daw day fekke ne kay li may wax moo ma dul arrangé. waaw. ci mbëri la wala ci xaalis yi si côté yëpp la man am na mbër yoo xam ne du ma leen may loxo du ma nekk si kàmb di maye loxo man looloo ma dal lii li ma dal nii lépp looloo ma ko teg tey booy ma bëreel ñu daan ma ñëpp amuñu benn coowu làmb ku leen xam ba làmb coow lañ bëre te man maa ngi toog bëreewu saa yi ma ko bëggee yëngal dama koy yëngal man Samba lingeer laa damay jaay sama nag jaay nagu jàmbur ñëw ba ràndaam toog. waaw léegi léegi léegi booy yi bari nañ fi booy yi bari nañ fi fii moom xam naa ne moom maye chance moom dootu fi am ndax yaag booy moom yéen na tolloo niveau sa morom bi ñan la. man ñi ma waroon bëreel ñëpp am nañ làmb. comme man làmb soog laa bëgg. làmb soog comme ñan. làmb coow bu àdduna ñëpp di xam ne kii nii méng la ma ñëw xare ko man xare ba daar man lu nooy xaw ma ko lu nooy day day xaw a teel sama. làmb ji léegi lu nooy amatu ci. ak a fee bëri. lu nooy di daw nii su ma ko bëggoon daw daw naa ko. lu booy di daw. nga jël làmb nga xam ne dang nga siy am ndam fors su la neexee doo dem sëriñ doo dem fenn man xare ba dara laa xam làmb coow. man samay mbokk sax am na làmb yoo xam ne su ma ñëwee wax leen ko dañ naa ma ah yow rek ñoo yeb man xare ba dara lu metti samay mbokk di xam ne lii lu metti lañ jëm. ok yaa jeex jàmm combat. jeex jàmm su ma bëggul de bëgguma ko. bu bogul bëggul bëggoo. ma bogul billaahi loolu mooy lan bu la bëggul bëggoo. waaw moo tax ko tekk waaye suñ doxé suñ lamb paré na duma ko tekk suma bogul bëggul bëgguma. mais ndax combat bu jaadu la gis nga ko. waaw suñ ñëwé ñu bëré koku yag nañ ko jox sama avance mi daw. jax jaamul mbawor la dëkk dé koku moom xamé ma ay daw. man fa la la wala dëkk xoolal ma sol verbal la dé fa la wala dëkk man ma ne la ñaari laa la wax déglu ma Mouhamed. waaw Samba Linguère laa. damay jaay sama nag jaay nagu jàmbur nu ko nit ñi xam maa ngi ñëwaat. maa ngi ñëwaat. waaw nañ ko xam si lépp maa ngi ñëwaat. te da ñëw nag fekk fi ay booyu ay booyu am fit booyu booyu am doole. nee naa sama retour missile la ko asma doo ko nooy. ok xamal loolu. Feugueleu bu Ngor parce que ñetti ñetti adversaire laa lay cité Feugueleu bu Ngor. jeex jam ak ak boy be ñagas de. ya may waxal tapet. fo mu ndu tapet. ki rasulillah koko gëna tapet si aduna bi. fëgg la mu ko. na la wax len Mouhamed man mën nga ma tëkku ni re si ginnaw re, waye man ak yow rek do ma tëkku barki rasulillah man limay may dund yëpp làmb la man si lamb lay dund awma lenen luma tek ma teg sa mbët lu dul làmb li nit ñi di wax non egguma fofu kon Senegal mën nañ jël ben wax ju ñaaw tegal ko doomu aadama. te Sénégal foofu lañ toll mooy jël lu ñaaw teg ko si deru nit ba tey yow soo génnee si àdduna ku la gis image boobu lay gis si yow kon moo tax ma ne la li ñuy wax sama kanam at li ñuy wax sama ginnaaw ma foofu man tolluwuma foofu sax man làmb kese laay topp ku ma bëgg nag ma bëgg bëggale ne làmb si làmb laa ne làmb laa bëgg kon booy yi nii nii ñoom bu ñu gis mengu mboora daanu na sax booy boo fi wax muy jéem a rëy làmmeñ nee naa la picc yi nekkoon seen kaaf yëpp damaa daanu ñu génn di mbaw barki rasulillahi ñemewuñu ma. fu fa nee na ma daa xam fa ñuy gaañee doomu <laughs> waaw baax na ma na ma. daa agressif de. waaw baax na su ñëwee ma ma génn photo ma munul bëre. kan fëgal la. munul bëre munul bëre. da koo seraan wala nga topp la woon. simbukat la woon. waaw loolu yàgg na fi loolu am na ñu nekk ay simbukat nekk ay champion ci làmb. ay petaaw la doon takk di simb ba guddi ngor. amuñu mbër moo ko booleel mu bëre munul ñun dañoo xare ba dar dañoo fekke mbapat ñun dañoo fekke démb fekke tay moom it daa fekke démb fekke tay ah ah moom démb simbkat la woon kon moom mënuñu jàngal dara si lamb yow démb lan man noo daara laa woon dama ko tarbiw yalwaan ko ba dee ah. waaw waaw te mu yàqal ma sama lépp làmba yàq sama lépp làmb moo yàq lépp sama àdduna te li ma li ma xañ yëpp dama pare pour mu fay ma ko moo tax ma ne la fu ma nit ñi nekku ma foofu man du ma nit ku bon doxuma si loolu te damaa bëgg doomu aadama yi ñoom li ñuy wax si man lu ñaaw ku si ñëw taxawoon man Mario ñu waxtaan di nga xam ne kii du nit ku bon man si lu baax rek laay dox barki Seydina boo xam ne su may ànd ak yow Mario ñu composé ma bàyyi la fa dox leneen moo tax ma ne la ku may jàppale na ñëw jàppale ma si làmb daw ma leneen lu dul làmb làmb rek laa bëgg. sama xol bi fuma munti nek lamb mo fa tek fo genn bañ nan Mengu Mboro lamb lañ ko xamé kon leneen luñ ma waxal nekuma fofu waaw. amna solo mais bu promoteur wo na nga jël avance. mais euh, fëgal bu nga wala jeex jàmm. inshallah promoteur man promoteur yu bari bëgg nañ lamb waay ñom suñ bëggul man bëgguma li dama wax leen lool ñom xam nañ ko. ah kay. <laughs> amna solo suba jëm ngeen ci lamb Mama Lamine ko Sock mama mom ñene na na. si côté bépp. est na maam fi mu ne tool yi bari na ci moom de. waaw baax na yu bari sax yaakaaroon ne maam du bari laa. waaw xam nga tey moom góor a soog la wax nee na maam da si texante xel la nekk. waaw loolu la wax day naxante. waa suba la dimanche. est-ce ba suba lan moo si des. ay heure rek a ci des kooku seexu yàlla wi la kooku ragalul. lambam yëpp xare ba dara la ko def seetaan ay lamb maamu Lamine. doole daanu Gora Sock moom si doole la ko teg su su dee affaire doole lay dem parcelle boobu buuxante ci. am na ñu jàpp moom amul sens sax ci làmb ji parce que góoroo góoroo ko ëpp relance ba pare ëpp ko jàmm naa la wax leen nit ñi dañoo mën a gisé loo xam ne nekkul gars yi ponkal kon rëy nga rek ñu gisé la affaire du foofu ñaari góor tànk dalante wuñu mënoo xam ko ëpp doole waaw su su suba nañ ñu xaar. kon ndam li daal maamaa ko moom. waaw parcelle yëpp nañ ñu xaar. ñoom dañ ne ñoom ñoom moom làmb ji. waa kay fi mu ne ñoo tee làmb ji. waa suba ñoom ñoo am lépp ñoo moom promoteurs yi ñoo moom lépp suba nañ ñu xaar. mais mais mais loolu dafa mën neen koy loolu dafa mën neen koy dañuy xaw a séesu ci yooyu nag promoteur yi fa am wala booy booy yi fa di ruube. ah ah demee parce que làmb làmb moom boo nee làmb moom. ñoom loolu dañ leen koy nangul ndax xam nga tey man suma ma sañoon promoteur dëkk sama koñ saa yi ma bëggee bëre mu tëggal ma ku ma ne ko diw mu boole maan moom làmb ji léegi looloo fi am. waaw da ngay yor sa promoteur ni ko diw laa bëgg a bëreel mu dem doxal la diw diw parewul mu dem xooliwaat keneen looloo am si làmb ji ñun suñu sañoon am lool ah ñun waa raan am ñun ñii nii nii diggante bii nii amuñu promoteur ñun suñuy dooley bopp la ñuy demee ak suñu ah. gëm-gëm mais góor a dee lu ci mën de am naanaan la te bëri naak ay champion yu bari boo ko ay ay defetam sax xanaa leerul xanaa kan góor waaw góor mbëri ay combat ay combat yu sof la bëri. waaw góor ñun nangul nañ ko champion am góor moom champion la loolu dañ koy nangu waaye mama ma gaa xam ne gaynde la waaw champion la. mais toogaay bi mu du ko blessé si làmb ji mama loolu du dara moo ngi si woon mama moo ngi si woon waaw na ko suba na ko xaar. am na solo bëgg naa ci yow kontaan na wax say say wala looy wax say supporter ndax am na ñoo sax bëgg nañ la te nekkuñu gox bi te fim ne yakana lu war lu war la nga leral lu bare bare bare ci carrière bi ndax am na ñu la bëgg te nekkuñu sax ci gox bi lan ngeen leen di wax lan ngay wax tam ñi nga dëkk wa di leen wax ñu ñew japp ci rek ndax man dama naan ñi ma bëgg te document ñom ñoo ëpp ñi ma ñi ma bëgg ñu dëkkan man barki sayyidina mohammed ndax chaque jour suma yewo gis nit ñoo xamne ne bëgg nañ ma ci àll bi man duma xamne suma ne su sax di dem entraînement nit ñi may wo man ma naan nit ñi fan lañ ma xamee waaye mais um mooy doomu aadama boo xam ne tey ku ko gis bëgg ko loolu yàllaa ko def barki Seydina Mohamed man samay noon xaw ma aw ma noon laay wax dama naan ñëpp ma bëgg man aw ma noon si àdduna ku ma gis damay bëgg di leen wax nag nañ ma xaar man maa leen ameel bor te bor boobu noonu chaque jour maa si teg sama tànk moom laa woddoo sama ginnaaw saa yi may dox damay doxoon moom te force dama leen koy fay. képp kuy samay suba reer na ma xaar ren dinaa ñëwaat ci kàttanu borom bi waaw ñoom makhar nañ nëbutu bi yàgg na lool waaye nañ ma xaar maa ngi ñëw waaw. waaw di bëggee ñëpp tamit di bëggee waa jàmm gën bi yëpp waa caaroy bi yëpp ma leen di bëggee di bëggee sama gox randam di bëggee waa roset Rosette Manko ay ziyaade kaani gi méngoo penc ah waa yëmbal Kër Massar buun waay di bége ñëpp si ka lam lamsar sam boy senzela yi fa ne at waa senzela wi ma tok ñom bañ jappé tamit ba tay bàyyiwu ñu doon ay yu ndaw am jom di bege tamit sama mafia jubu taari bi waaw di bege kep kuy bege mengu mbooro rek ma lay bege di bege ay fallu señ fallu di ko bu baaxa baax di bege tamit ñi ci kasso bi waaw ma may lonko yo xamne bañ nekké ci kasso bi ba tay am tamit ñaar sama ñaari doom yo xamne ne tamit ñu nekk si kaso bi ñu tëj leen si lu yomb waaw àdduna moo tax nag dëgg mooy lépp ñun tey suñ demee ba am ay mag yoo xam ne teg nañ leen si police dañoo war a àtte dëgg ay xale yu ndaw coow nañu at magum jëm dañ leen war a arranger waaye nga jàpp xale yu ndaw yu xamul 100 nga jël leen yobu leen 100 moo tax nguur gi dafa war a xool lool. ay xale yu ndaw war nañu xool neneen nuñ leen yaree nga fekk xale bu ndaw jël ko yóbbu ko biir 100 mètres mu fekk fa ay magum jëm mag yo xamne ñuy netali wat seen histoire muy dugg ci bop xalé bi xalé bo Mouhamed su génné lan lay dundu ji wat motax aduna chaque jour dañoo war di défar chaque jour dañoo war di xol jamm di ko dox waye di ñaanal képp ku nekk ci biir kasso bi ma lay ñaanal yalla tégg la nattu bobu nonu délo war la say mbokk képp ku fa ne muy sama mbokkat mu sama mbokkat ñepp wa wa Samet wa kam Manuel ñëpp ñu nekk si àll région Thiès bi ñëpp maa leen di bége waaw di bége képp koo xam ne caabi féete na la ginnaaw ak ñu feebar ñu ne si hôpital yi maa leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñu jug ñu nekk si armeel yi di leen ñaanal yàlla oyofal suuf seen kaw waaw. waaw fàttewoo kenn. fàttewu ma kenn bége ñëpp di leen wax nañ ma xaar maa ngi ñëw ak beneen i jamono mm-hmm. waaw góor bu dëgër kecc bi. góor bu dëgër këcc <laughs> ñu koy bëggee bu baax moom Mbengue Mboro mbokk yi dañuy sant ñëpp di bëggee waa sa fii FIFA la sam-sam ah oh, waaw jàmm gën bi la rek ah jàmm gën nag dafa yaatu ah dafa yaatu trop waaw mais ñu leen di bëggee bu baax di bëggee mafia bi yëpp di bëggee mafia Sanzala bi quoi comme ni ko waxee rek mbokk yi dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp jaa